ndakaaru lañ koy dencee yéen kaay gi de la Soleil ñu xëy fekk fa Assane Dioma Ndiaye moom nag nee na ñi nga xam ne ñooy victime yi faatu Hissène Habré yàqul dara ci ndàmp yi nga xam ne war nañu leen ko ndàmp yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na Hissène Habré këram gu mujj maanaam yoof la yéen kaay gi di L'Info wax ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmale ak lu jëm ci wàllum caution bi nga xam ne fukk ak juróom ci ay million la ba tey ci journal bi nee na ñi nga xamante ni nag ñooy indépendant yi ñoom dañoo mer ba futu mer nañu lool ndax dañoo jàpp ne fukk ak juróom ci dafa jégg dayoo te nag loole loolee antidémocratique la yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na candidat yi nga xam ne ñëw fas yéene dem ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal woo nañ leen ngir nag ñu daal di déposer seen i caution ci caisse de dépôt et de consignation yéen kaay gi di vox populi nee na Macky Sall ci boppam jamono ji nag ma ngi waajal bu baax a baax élection locale yi moom Macky Sall njiitu réew mi ndax nag woo nañ ñi nga xam ne ay kàngam lañ nekk ci wetam nekk ci benn bokk yaakaar réunion na ak ñoom waxtaan na ak ñoom nee na leen am leen confiance ba pare am leen solidarité lu jëm ci wàllum investir yi ci élection locale yi danañu ko def ci anam boo xam ne critères yi mucc ay fa la ñu ko teg du am benn par parparlu lépp si yoon lay jaar Macky Sall leen di jàjjee yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal soo moytuwule opposition bi du ñu duñu ànd Momar Diongo te ab journaliste analyste politique nee na opposition bi yépp ànd ci élection locale yi loolee moom munta nekk li mën a nekk mooy ñi mën a ànd ànd ñi munta ànd bañ a jàmm na ñooy yéene kaay gi sa xëy duñu xibaar naan ñu am na nag benn càmbar ak benn taxaw seetlu boo xam ne war nañu koo def ci yenn cay homme politique maanaam seen poids politique ndax nag am na yenn leader yoo xam ne maanaam amuñu poids politique yéene kaay gi de la turbina bàyyi mbir moomee wax ci dund gi nga xamante ni jamono ji jafe na ba maara de tali ci ñenn ñi maanaam souffrance bi nga xamante ni moom la ñenn ci askanu Sénégal di dund jamono ji fukk waaye nat daan na koy passé mbooloom produit yi nga xam ne askan wi nañu koy jëfandikoo jamono ji dafa cher ba maara de tali lépp loo xam wàllu matériel de construction lépp lu ñuy tabaxee jamono ji cher na ciment bi cher na diwlin gi cher na suukar ci cher na meew mi cher na légumes yi cher na factures yi na yéen a kaay gi nee na lépp nag Macky Sall est le principal responsable yéen a kaay gi de Le Quotidien ñu xëy fekk fa Cheikh Bamba Dièye moom nag daan nay bind ab lettre ki nga xam ne mooy ma mu du Talla mi ñu dénk njàng mu digg doomu mi ci trente milliards yi nga xam ne du Talla bëgg na koo jël def ci ay tenues scolaires yéen a kaay gi di réew mi Quotidien xëy xibaar naan ñu tey ji boo moytuwulee tribunalu Thiès dina yëngu ndax dafa am benn terrain boo xam ne piccog mbaaloo daf cee am dox diggante mu Moustapha Sy ak nag ay kilifa ca tiiwaanu Tiwaawoon tey ji la ko tribunal bu Thiès di àtte mooy terrain bi nga xam ne fa la ñu dencoon bàyyi Kaatim Touré te ñu mujjee ko sulli terrain boobee la nag yéen kaay gi de la témoin nee na en tout cas li ba de sàll mooy jamono ji Tiwaawoon maanaam ay policiers yi kese la haute tension yéen kaay gi nee na Serigne Moustapha Sy nag moom joxar bi na baaraamu tuuma Macky Sall nee na Macky moo nekk ci ginnaaw di ruube yéen a kaay gi di 24 Sagna nee na inondation yi dina yeex lool mu jógee ci Sénégal la ko waral nee na inondation yi fa ñu nekk mooy pauvre yi daal ñoo fa nekk ndax ñi nga xam ne nag ñoo riche war a lijjanti inondation yi ñoom dëkkuñu fa kon nag jamono ji duñu ko def yite yéen kaay gi de Les Échos xëy duñu xibaar naan ñu ca diiwaanu Pikine Nord foofe nag militant yi maire ba di Amadou Diarra ak militant yi Thierno Alassane Sall yi ñoo fa doon jàppante jàppante bu métte métte am ay blessé am na ñoo xam ne teg nañu leen loxo yéen kaay gi ay jafe-jafe jëm ci wàllum délivrance certificat moo ko waral la yéene kaay gi di réew mi ko di jee nee na garage Colobane am na benn chauffeur boo xam ne ñaari gars yi ñoo ko jàpp dóor ko ba toj bopp bi mu yóbbu leen fa mbaxana doonee benn yéene kaay gi de la ko di jee xëy duñu xibaar naan ñu police ak gendarmerie jamono ji ñoo ngi def ay opération yéene kaay gi dee sat xëy duñu xibaar naan ñu Paris Saint-Germain ñoom nag nee nañu du ñu téye benn yoon Kylian Mbappé journal bi nee na ñoom laaj nañ lu toll ci 144 milliards waa Real Madrid ba tey ci journal bi nee na nag Kylian Mbappé bu jógee ci Paris Saint-Germain gars yi ñoo ngi lijjanti ngir Robert